de euh, Iba Diallo. Mhm. Mm, ci couvre-feu bee njëkk. le cas de Dame Amar ba ñu arrêté ci daam Amar am ñeneen ñoo xamante ne arrêté nañ ci. ñu mhm. dégg que ni euh, ñoom bàyyi nañ leen. Mhm. Euh, ba fi mu toll ni sénégalais yi ñu ngi révolté wu ci loolu noonu xam naa loolu dañ ciy ñëwaat. non non dinañ ci cus dinañ ci cos sax balaa ñuy avancer parce que yow mënoo li tax li tax ñu jàpp leen ñoom ñooñu nga xamante ni seeni bàyyi am nañ alal. ku ci mel ne Dame Amar. ak ñoom Iba ñooñu. xëy na lu ma am mordom moo tax. bu doon femme bi décédé wul du yëg ci kaw même bu leen fa police fekkee du dem ci kaw mais nag bi ñu ñëm ndox bi ñu xamee ni que police ci boppam dafa am ñoo xam te da leen jox attestation bi pour ko ñu jàll parce que nit ki bu amee benn permis de de circuler circuler kon cest dafa am ku ko ko jox ñan ñoo leen ko joxoon ñan ñoo organisé woon li nga xam te mooy appartement bi kon dafa am décédé foofu décès boobu am fa nag moo tax ñu jël teg leen ci yoon kon man bettuma bettuma ñu jekk wacaag ñu ne libéré nañ daam amaar bettuma ndax bu fekkoon ni dañ ko def yemale leen comme baadoola bi nga xamante ne benn juin nga ko jëlee tëj ko mhm. bu ñu ko defoon ci ki nga xamante ne ginaar la sàcc ñu tëj ko bu ñu ko defoon bu ñu ko defoon bu ñu ko defoon ñaata nit ñoo nekk biir rëbës yoo xamante ni benn juin lañ leen jàppee tey jii jugé guñ leen mhm. ñaata nit ñoo sàcc xar ñu tëj leen pourtant am na ñoo xamante ni ñoo ngi fii di dox. Mhm. def costume takk seen cravate di yor seeni xaamaar di wër ñoo xamante ni jàppe nañ leen ay drogue mujjul fenn. ñu jàppe leen mujj ñu fenn ñu jàppe ay attentat à la ñu fenn ñu jàppe leen jàppe leen jàppe leen mujj ñu fenn parce que lan la ay nombre tànk la ñu am mais li may wax lenn lenn la mooy loo am nombre tànk am nombre tànk bisa ngi ci bisi yow procureur bés a ngi ci bis yi yow président la république yow mi nga xamante ni ministre nga wala nga yor ndomba tànk boo mën a yor jàppal ni bés a ci bis yi mbër ma ngay dajal mm-hmm. mbër ma ngay dajal sa famille moo lay indi famille bi moo lay sang mm-hmm. famille bi moom moo lay takk génne sa jees njëre sa gadi laa sànni ko jël perkaal bi yeew la ba nga dëgër jël parfum bu gën a naqari ci parfum yi saañ say nopp jël sa bakkan yi saañ ko yóbbu la nag ba nga xamante ni mooy sa këru dëgg boobu nag mooy kër gi R plus yi du dara de R moyen R moyen moom mooy bàmmeel loolu mooy dëgg gi <laughs> ak koo mën a doon ci àdduna maytul bés boobu xamal ñu que malaka yi la suñu borom booleel tey du la booleeg ñoom suba de. Mhm. relève la ñii bu ñu ñëwee tey loo ci deful perte nga ko ndax ñeneen ñu ñëw yàkkamti bind kon yow mii di procureur la ngay def na ci xool yàlla yow mii di président la république na la leer ni la ngay def nang ci xool yàlla baadoole yi nga xamante ni ñu ngi sonn du ñu lekk du ñu naan ngeen di jël alalu askan bi di koy ak di foyee na ngeen ko ba te ñi nga xamante ni ñoo fi nekk nañ leen yemale ak ñi nga xamante ni ñoom seen loxo jotu seen ginnaaw su ko defee bu boobaa ñu jàpp ni démocratie am na ñu jàpp ni liberté d'expression bu ñuy wax ni Sénégal fii dëkkum teranga la am na fi mais fekk loolu doxalewuñu ko mm-hmm. jaar yi du du neex. Mm-hmm.